c'est légalisation c'est légalisation dafa dindi góol bi ba mu set daal paas ndànk caaxi nekk fa di dana caaxi ama ma àll bi rek ginaaw biñ centré teg si ay seconde gis ngeen ko noonu ñoo ko gisandoo. benn lañ def ñu ngi noonu di tàmbalewaat beneen match boo xam ni match. arbitre bi nee na ko dóoral ci. mu muy def dugg na deuxième bi la na da ko mu teg ko ci bopp bi rek kër ga fees ñaar ci benn xale yi dolli nañu deuxième bi fu mu jugee te corner ba la jugee ñu teg ko ci bopp xale yi ñu dolli ñaareelu bi